Ibrahima asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi asalaamaaleykum soppe yi ak xarit yi ngeen dal ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média euh, ngërëm ñeel na leen ndax boobu ba tey yéen a ngi jàpp teewu bàyyi noonu la ñu nuyoo itam kilifa diine yi kilifa aada yi di ci boole ñi nga xam ne ñooy xalifa généraux yi boole ci cofeel gu dul jeex noo ngi leen di nemmeeku ziyaara leen sukk seen wet di leen ñaanal yàlla waaye itam di sàkku ci ñoom ñaan ñaanal leen ñu yàgg fi lool te mu ànd ak wér dugg nañu ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi ñaanal malade yi fa nekk yal na yàlla yëkkati leen te bañ a tëral kenn ñi nga xam ne itam caabi daf leen a féete gannaaw yal na yàlla féexal leen ba nu gaaw dellu seeni activité nuyu ci biir kër gi nag sunu PCA mbooleem directeur personnel bi yëpp di leen wax kendal ak jàmm képp koo xam ne itam da nga feebar nekk sa kër jàkkaarloog ñun ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax a baax nga wér ñii ngi ñuy dégg gisuñu ñu ñii ngi ñuy gis waaye du ñu dégg yàllaay dogal ànd ak lu mën ci am rek nañu nangu yi fiy am te ñaan yàlla mu fees dell suñu xol 88 la 628 22 22 88 628 04 05 ñu ngeen nuyu bu baax a baax waa Yoof Cambérène Mami di leen jaale ci sang bi fi jógee macha allah di ñaan yàlla mu taas ñu ci barkeem yóbbu ko ca aljana yi gën a kawe xel dafay dem itam ci Adja Ulay Diop sunu yaayi bopp macha allah ñu ngi jaale njabootu alaaji Abdoulaye Ndiaye yépp ca Colobane mhm. waaye dëj bi ñu ngi koy defee ca Apexi 2 macha allah villa 355 kër Adja Ouley Diop sunu yaay sunu xarit sunu njëkke di ñaan yàlla aji dem gi yàlla defal ko jàmm ca fa mu jëm mhm. bu leen dem fenn toog leen jàkkaarloog ñun xam ngeen ne TFM euh, ak wareef bépp thème boo xam ne rek daf ko yëkkati yéen a tax ñun a tax ñun ñëpp nag ñu ñuy ñaan yàlla jële ci njëriñ bu bare bare bare ndax njariñ macha allah dana jóge saa su ne ci waxtaan nee na ñu danoo wax rek tànn mm-hmm. Adja Linguère maa ngi leen nuyu dañuy wax taaj ku nekk tànn ja la la la nga mën a jariñoo axankay ah, ah, dañuy wax sax ñun ñi ba yàgg nga ñibbi tànn ci loo xamante ne jàppoon nga ne doo ko ca dëgg la Jóob dëgg la dëgg la mm-hmm. ma jox la kàddu gi nga nuyoo wallaay wallaay di nuyoo di sant bu baax a baax a baax door rek ni ñu daan dooreeti neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba suñu yaakaari tegal ak sama yàlla mag Nelson Mandela te bu koy jaloore ziar mboolem kilifa diine kilifa aada yi ñaanal sunu maam sunu soppe maam Cheikh Tidiane almaktum yàlla yokk leeram taasu ci barkeem almuntaqa borom mbégte mi yàlla na yàlla taw wi fan wi wi te wéral cër yi lool lool ak mboolem sunu xalif généraux yi ndax réew mi yaatuwul ñun ñu ko dëkke bariwul euh. te ñoom ñooy ci der euh. ak soppeem ba jullit bu mu fa fekk ak bu ko fa fekk euh. waaye noonu tamit la ñaanalee képp koo xam ne jamono ji toog di wax dangaa nekk ci tiis nekk ci naqar ndax nekk ci tiis ak nekk ci métit doonte nag lu sunu borom indi la waaye nekk ci biirum ndox te yoroo sax ñaar dërëm yoo ca mën a génnee gisoo kër goo mën a dëkk gisoo foo mën a rawalee sax njaboot nga nekk ci néeg yu lëndëm yooyu néeg yu xat yooyu gisoo foo teg sa cin ba taal pour mën a lekk bu guddi jotee bu ñëpp yi nelaw nga taxaw wax dëgg yàlla métit la coono la waaye nag nañu ko muñ loo sunu borom ñu ko teg ba lépp bu jàllee mu nekk ay xéewal sutura ak i teraanga yu yaatoo yaatu waaye noonu la ñuy ziyaare mbooleem koo xamante ne itam heure bi dangaa nekk ci bànneex suñu borom yàlla na ko saawaan baawaanal ba mu gën a yaatu bu baax a baax di leen ziyaarat bu baax di ziyaar nag baaba njéeme biraadaan maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaye comme li nga wax dañuy dugg Cambérène Yoof Ngor ñoom ñëpp mbooleem foo xamante ne rek waa kër Maam Seydina Limaamu Laay nga fa ñu sukk ci sa kanam ma saw la teyit nag di ñaan ki fi jóge yàlla na yàlla seral fa mu jëm waaye teg loxoom ci njaboot gi noonu lañ koy jaalee soxna jaara caw laay suñu bopp wax dëgg yàlla ndaxte bu ñu sañoon sunu kilifa yooyu dañ fiy yàgg lool mm. ndax ñoom lu ñu fi gën a yàgg rek njariñ la waaye ñoom juboo nañu ak suñu borom ndax xam nañ li fi nekke woon kon fañ jëm ñoom ragaluñu ko ñun rek ñooy jiit ñu allah jërëjëf Diop euh, inspecteur ñu ngi kontaan ci sa teewaay <laughs> jaajëf maa ñu ngi lay nuyu. jaajëf maa ngi lay di ziar di ziar mami di ziar. ñun daal kontaan nañu mais man xamoo nii laa ñàngee ci télé bi tey. waaw waaw bi garaaw na. waaw lug bi waaw ah, mais mais te redresser lunettes yi encore non ma defal ko nii ah. non coté B. nii super. jaajëf kon rien à dire. kon loo waxati. baax na moom kay bu doon lunettes yi du jàll kay ba nga eh, jàllee ñu ne la du jàll mais signé nañu. waaw jaajëf kii waa waa régie lu ñu wax. waa régie bu nu wax sa jigéen bu waxee rek. njëkkee mami bu waxee jeex na ah gasi. <laughs> jaajëf kon non non non kontaan naa xaw ma woon ni nii laa coofee quoi jaajo <laughs> maa ngi ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di ci jiital sunu sëriñ bi ba Bassirou Abdou Khadre di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér amiin yaa rabbi di ziar waa Pire Saniokhor gi yëpp sunu xalifa sëriñ Mansour Cissé ak mm. sëriñ Maodo Cissé mm. ak euh, sunu baay ba moom parent ji bi Diagne ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér amiin ak euh, sëriñ Sidi Mbacke ñu ngi koy ziar ak notable ya fay nekk yëpp sunu papa sëriñ Boub ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm di mhm. fas yéene ñëw rek ci waxtaan wi mhm. eh, njaal mi njaal ngeen ko mhm. ma yóbbaale ñu ñun ñëpp rek eh, ñuy wax rek yàlla yàlla may dégloo ak topp amin amin amin jaa ngeen jëf ñu ngi jaale bu baax wax naa ko sànq ñoom papa Abdourahmane Ndiaye ñoom Adama Ndiaye ah ñoom Alioune Ndiaye Omar Gaston wax dëgg yàlla Adja ku lim sa lépp nag nee na nu moo la catu du nu lim du nu lim ndax njaboot ñaare day yaatu yal na yàlla yóbbu képp ku fi jóge rek yal na yàlla yóbbu la aljana loolu la ñuy ñaan Baba Ndiémé Dieng ñu ngi lay wax salaamaaleykum. waaleykum salaam di kontaan ci dalalati la. waaw ah, ma ni ma ni salaamaaleykum maam Kumba ba nga xanaa su ma neexee. <laughs> wala maam Kumba Lambaay maam waaw sama xel a nga ndar maam Kumba Lambaay wax nga dëgg wax nga dëgg dafa am koo xam ne bu ma daan dugg ndar mu ne ma ah eh. doo nuyoo maam Kumba ba ma ne ko gisuma di gub <laughs> bisimilah maam Kumba Lambaay salaamaaleykum Baba Ndiémé eh, waaleykum salaam eh, maa ngi lay nuyu baax am mbégte wax dëgg yàlla am naa tak yéen beneen yoon ci émission bi di Wareef di nuyu itam monsieur le maire di ko ñaanal bu baax a baax maa ngi doo gisee mom moom boobu ak léegi kon ko ndokkeel di ñaan yàlla itam wax dëgg yàlla yéen bi ko lool euh, te àggale yéenam ak mébét yëpp man de bokk naa ci ñi nga xam ni mhm. incha allah gëm naa ni day réussir mission quoi euh, parce que dafa am taxawaay boo xam ne soo ko amee di nga mat meer tabarkalla macha allah man de bokk mhm. la ko tagg ba ñu am benn ma bi ma fi mujjee mu ne ma li ma naq rek mooy mhm, mami daf la waajaloon mooy suñu émission mujjee mais <laughs> temps bi dafa gàtt dëgg la ma ne ko dama ko buxaaba doo nga ñëw mais di leen jox nuyoo ak yóbbante waa Thiès fan yi dama bari tànk lool Thiès wax dëgg yàlla ñu xamee ma ci émission bi euh, vraiment ni ma soo fa demee tey nuyul ñu leen vraiment ku ñuy wax euh, Babel euh, Thiam prometteur mm-hmm. taalibu Cheikh Ndigal seen mm-hmm. mu ngi leen di nuyu baax a baax a baax di leen béggee di nuyu réew mi kenn ku ci nekk yëkkati nañu thème bu am solo de waaw am na solo lool mooy kóllëre mm-hmm. waaw am na solo lool defe naa ni lu lu tumuranke la nag lu tumuranke la ci jamono ji lu jara waxtaane la mais jàpp naa ni euh, Eva. naam euh, li tax ba kóllëre. ñu toll ba jamono bi mu tumuranke façon tumuranke boo xam ni. Mm-hmm. nit ñi dañ ciy def taxaw seetlu mu jur ay ay ay ceexi jaaxa. li ko waral mam yi xam nga lan la ci sam li ma jàpp. moo di diggante yi ñoo sosootul na mu war a sosoo. waaw diggante yi parce que bu ñuy wax kóllëre tamit. Mm-hmm. dafay nekk ci diggante ñaari nit. Ah, wala ñaari askan. wala daal ñaari institution wala dara. ñu séq que di ko doxal. Mm. diggante ba am fu mu yem wala sax mu continuer dëgg la mu neex ba yàgg mu naqari. Mm. mu naqari ba yàgg mu neexaat. ñu bëggoon ñaar ñi séqoon loolu kenn ku ci nekk. lay see taxawaay bu njëkk di sa warteef rek nga sax ca. loolu nag li tax mu tumuraanke mm. ci sama xalaat dama jàpp ni ànd yi léegi moo sosootul na mu war a sosoo. Mm-hmm. muy xaritoo. muy jëkk rek jabar muy patron ak employé muy dëkkandoo muy taalibe ak sëriñ àndu yaa ma neex la base ba la ñu fose loolu nag bu fekkee dañ ko fose mhm. euh, buy neex problème mën na bañ a am mhm. problème mën na bañ a am mhm. parce que euh, kenn ku ci nekk am nga loo xam ni moom nga doon xaar ci sa morom yaa ngi koy jot mais bu ñu demee ba jëmmi jamono mu jeex tàkk wala mu dem ba naqari matal ko rek taxaw des fi nag ah su boobaa nag il faut que fàttali ko am. est moo tax c'est il faut faire beaucoup attention. kon liñ ne koy fàtte démb gore woo. Mhm. dëgg la. ndax ngor ak kóllëre man dama jàpp ne kenn mënu leen tàkkale ñoom ñaar. waaw xam nga xam nga déjà nit ki nga xam ne mooy nit ki nga xam dafa am kóllëre. Mhm. mooy nit ki nga xam ne li tubaab di wax ci ab sayt te jullit gën ko cee yey. Mhm. muy pour le piir et pour le mal. moom mu dund ko ak ki nga xam ne moom la ko seqal. kooku nag soo amulee ngor du ko mën waaye moo tax ma ne il faut faire ko attention ci yow mi lamante wu sax ni jàpp ni ah man kat am na ku ma séqaloon àdduna am naa fu ma toll tey mais moom kat sàmmul kóllëre gi mais lan nga séqoon ak moom ak naka nga séqe woon ak moom àdduna ak foo leen naka ngeen sose woon seen relation dafa am benn kilifa bu ñu mos a toog di ko laaj ñu ko dégg nañ ñu ne yow nitu intérêt nga mu ne piir ñu ne bañoo ko a ne déedéet ànd bu amul intérêt mu ne waaye ban intérêt ban nitu intérêt laa daate wax la nga xam ne fa la xalaatee kon maa ngi bëgg ñëw ci ni comme li ma mi wax nii nga xam ne bu fekkee ni ngor dafee war a des pour que ñu continuer relation dundal ko ni ñu ko war a dundalee olof dafa am lu muy wax ne balaa ngay gore da ngay goor ci dara ma ne waaye man waxuma sax dama koy diis balaa ngay gore dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dafay fekk boobu nga xam yaay kan balaa ngaa xam yaay kan nag day fekk nga xam fan nga jóge moo tax li nga ma walaat léegi dafa sosu te yàlla taxul fa laa ak yow moo tax ma jaar ci wax bii il faut nga xam yaay kan balaa nga xam yaay kan da ngay xam yow fan nga jóge moo tax nit ki gore dëgg mooy ki nga xam ne moom dafa matal kóllëre ak suñu borom su matalee kóllëre ak suñu borom waru ko képp ku mu digaaleel àdduna soo yeboo da nga jàpp ni kii du la ma sa war moo tax yow sooy jëflante da nga fexe jëflante ak borom jikko te am diine di ab jullit pire. am kóllëre ak boppam parce que mënoo suñu borom mi la sàkk. Mhm. sagal la suturaal la. Mhm. nëbbal la say ay mhm. defal la guddi ak bëccëg te benn ñoro ko ci ndax boo ko tooñ mën na la cee duma. bu ko ñoree ndaxte heure yëpp moom mi ngi ciy loxoom. ndax gëmmul nelawul gëmmentuwul. walaay dëgg la yàlla suturaal la bind la ni mu la bindee ngay doomu aadama nga gënal ko ci lépp ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. fayda mhm. mhm. mhm. xam nga alxuraan sa daf ko indi wax lu leer ne yàlla dafa bind nit ci anam bi gën a rafet mu ne waaye mu mu doyadil boppam ba wàcce boppam ci anam bi gën a suufee pour rejoindre li nga xam ni moom la may wax waaye loolu tamit vice lay doon gis nga ki nga jàpp ni moom matalul kóllëre ndax ka mu àndaloon ka mu séqaloon di séy ak moom wala mu xaritoog moom wala mu séq ak moom àdduna bu mën a doon tey jii bi at diggante boobu jeexee wala bi loolu amatul moom toppatu ko faaleetu ko dëgg la moom maturul condamné mais kër aussi diggante bi demoon na mu bàyyi ko ci parce que il y trouvait son compte mm-hmm. parce qu'il s'y trouvait son compte moo tax lii ñuy joy ni nañ ko xool ci suñu biir dund ba pare très bien de part et d'autre de part ñiy jooy ñàkk kóllëre parce que am na fu ñu toll tey am na lu jeex tey te ni ñu ko séqatuloon gisuñu leen ñoom naka lañu àndee noonu ak moom toujours dama koy faral di wax ni su la yàlla mënee gan nga am pal su la yàlla ne gan nga am xaalis ngay xale bu jigéen nga taaru nga def dara moytul ay tàccu billaahi dañoo defe ni yoo la gën a jigéen di waaye doomu aadama la gën a jigéen mbaa du wiiw dafa jege wu taj taj yi nii ah. lu ko yoor ragale ba di ko daw rek bu yoboo doomu aadama ragale ko lu ko raw macha allah mais ñu ci baree bari nag teg teg jeeg yow laa toj nga fi dañuy gën a xam ni dañ leen di nax dañuy gën a xam ne li ñu wax gëmuñu ko mais loolu itam daf leen dundal ñu continuer ak noonu mais bu jeexee aussi jeex bul bëri waaw surtout yooba de ba mu ñëwee ci maam ji ne ko man de maam xanaa ñun suñu yax bi daa rëy ndax suñu judd bi foor na mm. ndax man damay def dëkk bu ma romb rek dañ may tàccu dëkk bu ma romb dañ may tàccu eh. maam ji ne ko doom toogal ma wax la mu ne ko waa man mii sa maam eh. fentee ma fi bàyyi fentee ma fi bàyyi mun a fente rek ma fi bàyyi macha allah ma macha allah mami macha allah ndoy ban euh, définition kóllëre bu nu ko doon wax lu lu lu yaatu la mm. lu lu yaatu la macha allah mm. te ni ñu koy waxee rek domaine yëpp boo ca demee di nga ko fa di nga ko fa fekk mhm. euh, ñakka fas ak ñakka fecci fii lañ koy fekk waaye li soxna si wax démb dafa dugg suñu xol am satu am satu géey la de waaw nee na euh, kóllëre yëfi yëfi yëfi gor la mhm. ma yokkal ko ci yëfu faaris la mhm. te bu nu waxee gor ak faaris ñooñu ci ay valeur la ñuy tënku te fépp foo xam ne am na valeur rek faw kóllëre dana fa toog waaye diggante boo xam ne dafa na sax dara dëgëru fa dara leeru fa dara peesew fa dara foofu boo fa demee doo fa fekk euh, doo fa fekk euh, kóllëre ci suñu gis-gis macha allah. Euh, ñu ngi koy remercier bu baax. li may wax maa ngi maa ngi jégalu ci kàddu gi li may wax. Sénégal fii ak ba yamale. merci ak merde. Hmm. ku la ni merci yamaleel ki naan merci ak ki lay wax merde. Hmm. yamale leen parce que ki lay wax merci tey suba moo naan la moo lay wax beneen bi hmm. ki lay wax beneen bee su boroom mu mën na la wax bee ba ca def at at bu ne ma wax la ko di voilà ne la Alpha Blondy lu mu wax mu ne ube tegere foo kila yelen sanfé ka tegere foo kila jigéen lu mu tekki dañuy def nii nii nii ne la wiiw ca kaw ne ne ne nii ne la nii voilà léegi nag ñaar <laughs> waaw yamaleel ki la koy wax tey ak ki wax leneen li dëgg la yamale ko mm-hmm. parce que euh, et puis soo waxee sa waay dañ lay wax toujours ay waxu yàlla ay waxu diine. mooy njëkk mooy mujj. du fi jóg. mais jamono jii ñu toll nii nii nii nii nii nii mm. mm-hmm. euh, li ma tàggoo démb rek laa lay wax ni la. Mm. <laughs> li may tàggoo démb daal rek laa lay wax. dëgg ni la. Mm-hmm. lépp looy def. Mm-hmm. def ko ngir yàlla. waaw. ndaxte nit a ngi baaxoon lool jekki-jekki bon ñu naan lu tax kii sans soppeeku. oh fekk nit ñi ñoo ko soppi. soo fàttalikoo. waaw da ngay soxor. soo fàttalikoo da ngay bon. Mm-hmm. soo gëstoo si ginnaaw dangay bon da ngay soxor te nit ñi ñoo lay puus. Mm-hmm. nga mel neneen noo xam ni doon sa jikko. Mm-hmm. mami yàgg na leen a wax fii ni leen cin tàngul xaw ma nu nga ko waxee. cin baxul suufa man tàng mu walax ko voilà mm-hmm. donc nag cin loolu di tàng nit ñee koy tàngal yow nit ñi ñooy ñëw fekk la nga baax di def lu baax di jàppale nit ñi di ko def te yàlla tax ñi ngi koy defal ñëw won la goree di gu bono bon goo xam ne tey jii soo gëmul yàlla lool lool lool lool mm-hmm. da ngay soppeeku mm-hmm. soo gëmul et puis la koy def ba pare jàkkaarloog yow et puis li ma mi di wax rek euh, ki la war ta pes su la pesee ah day gën a metti ki la war a war warta war dul soo la waree day gën a doy waar ki nga xam ne waru kii warta xaw yi su xamu gu tam bi nu mu tuddati mm. nu mu tuddati kala war a ut bu la ba ma xee day metti voilà c'est ça ah, ah. loolu nag loolu nag su baree su la ko Eva defee mhm. mami def la ko baaba ñëw bi def la ko te nga doon yaakaaroon ci ñii mhm. suñ la ko defee mhm. dëgg da nga man kan lay wóolooti dëgg la c'est ça problème bi dëkk bi dañoo dem ba nit ñi kenn wóolootul sa morom c'est la vérité nit a ngi tëdd ak jabaram sax te wóoluwu ko nit a ngi tëdd ak jëkkëram te wóolu. dugg nga fu métti nit a ngi tëdd ak borom. diggante boobu nag kóolute dafa am solo de. waaw waaw nit a ngi am am taaw mais nit a ngi am taawam te wóolu ko. ah kay mm. nit a ngi denc ay million tëdd fa mu tëdd ca lalu hôpital ba feebar ni su ma deewee sama taaw bi dina dina tas sama famille. dëgg la dina tas dina tas njaboot. dëgg la mais loolu la la la loolu xaaw yi yàq kóol kóol kóolere la ba kooku amul benn kóolere taaw boo xam ne yow yow ñu ngi yaakaar ni soo sa baay génne àdduna yow yaay rassemblé waat famille bi defar leen teg leen ci yoon ku nekk nga gérer ko taxaw sa taxawaayu papa. yow nit ñi di xalaat ni yow su paa bi jógee fii di nga tas famille bi. Mm. c'est là loolu contraire bi te am na. Mm-hmm. am na taaw yoo xam ne dañoo judd rek yàlla teg leen loxo. dëgg la yàlla teg leen loxo. ñuy jàppale seen seen frère yi. gis naa ci benn booy mus naa leen connecté les je pense comment waa ji dafa du boy sax magum jëmm la. Mm-hmm. dafa judd rek gis papaam. Mm-hmm. ak jabaru papaam. yaayam mais xamul woon ni Baba Ndiémé judduwul ci sëy xamu ko woon moom dafa màgg rek gis jabaru papaam mais xam na ni moom yaayam gaañu ne kii tantaam la mais moom rakkam yi ci kanamam lañ juddoo dëgg mu nekk ci kër gi nekk taawu famille mu dem jàng la papaam jàng ñu jàppale papaam ci entreprise bi waaw dem ba nga xam ne papa ji daa toog kër ga moom mooy gérer entreprise bi Mm-hmm. bien papaam yëpp ci moom la nekk lépp lu papaam jënd moo ko jënd oto yaag terrain yaag kër ga sawaay mm-hmm. moo ko tabaxaat papaam a ngi ci kër ga sa waay tabax ko ba mu naa jàppale doo rakkam yi ci njàng mi mm-hmm. ba xale yi ñi commencé nañoo def stage ñi ñi ngi ñi ngi continuer jàng ma daal kër gi amul benn problème paa bi xëy suba gaañu waa ji defar dëj bi te li ma lay nii waa ji maa toog ci rajo bi mu ñëw nettali ma lépp ni ma nu may def mm-hmm. Mm-hmm. paa ya nga xam ne ñoo daan ànd ak papaam ñoo ko ngénte woon ba mu juddoo mm-hmm. ñoo ñëw ca miraas ma ñëw ni ko yow mii juddu woon ci yoon alali paa bi amoo ci doo dondoo mais loolu mu loolu lan la loolu lan la doy na waa te imaginer ku juddu ba am quarante ans quarante cinq ans nekk sa kër baay musuñu la ko wax musu koo xam yow da ngaa jàpp ne sa papa ak sa yaay dañ doon sëy ba sa yaay gaañu sa yaay sa papa jël beneen soxna moom loolu la jàppoon ay bàjjanam waxuñu ko dara mhm. ay rako papaam waxuñu ko dara mhm. imaam yi ca koñ ba kenn waxu ko ci dara mhm. ba jour bi nga xam ne ci la ñuy ci la ñu war a miraas ñu taaj ko ak ay doomu baayam mi nga xam ne rakam yi rakam yi tamit xamuñ ci woon dara dëgg la ñu ni ko fa teel la foofu léegi lan la lu waaj loolu moom nga nga baal mais loolu ci xaritu papaam yi ñëw annoncé ko loolu noonu ci circonstance yooyu Euh, dafa ñëw ci thème bi carrément kooku loolu ñàkk kóllëre dëgg la. ñàkk kóllëre diggante ak ñoom ak bàyyi xale boobu. waaw ndax ñoom fa ñuy waxee lislaam moo tracé noonu. waaw ñu fi pour wax l'islam lii la mm. wala l'islam dafa si mais l'islam moo tracé noonu. mais gis nga suñu amoon kóllëre bu rafet seen xel dana dem ci aji dem ja ñu xam ne ñoo fekk nañu démb fekk nañu tey mais man nañu am bunt yu ñu jaar. ba def la nga xam ni moom la leen islam sant duñ koy jalgi te duñu frustré xale bi. mais aji dem duñu xaw yi itam sutura dem dem na mais dafa def def na erreur. Mm. paa yi def nañ erreur. Mm. doo yor ma jëm yor sa taaw mu yor di lay jàpp si liggéey bi. Mm. nga xam ne kii nii la demee. waxoo ko dara. Mm-hmm. préparé woo ko ba xëy si ay jour ay jàmbur ñëw ñëw ñëw toroxal ko noonu. Mm-hmm. loolu toroxal la. mais bi mu ñëwee laaj ma nag man. Mm-hmm. man chef de bande bi bi ma ne ko ñaata nga denc ci alalu paa. léeg-léeg léeg-léeg da ngay sol casquette u chef de bande waaw man ko ñaata nga denc. mu ne ma am na sama papa am maanaam mën naa ne xaalis bu du su dee cent pour cent quatre-vingt pour cent yi maa ko denc. man ko soo demul ci perte tout. booy bu fi mu nii dafa dem. Mm-hmm. yóbbul lépp la yóbbu mm-hmm. mën ko mm-hmm. yóbbul parce que soo ko deful dañ koy toroxal sa jabar jabaram nekk ci biir kër gi ak doom ñu def ko jëf ju ñaaw jooju l'islam waxewu leen ko noonu ah l'islam da leen ni ku ci am jabar def def njaalo ba am doom joo xam ne dudul se dañ la rey reyu ñu bàyyi ma ne ko reyu ñu sa papa <laughs> kenn appliqué wul charia ci yow. ah gros dossier. dama ne ko kenn dama ne ko. gros dossier ma dama ne ko. ah ma ngi kenn ci sa papa. Hmm. pourquoi ñuy appliquer charia ci yow. Hmm. suñ appliqué woon charia sa papa yow doo judd. mbaa sa soo ñëwee doo fekk dara loolu lu ñu miraas. Hmm. paa yi nga xam ne ñoo ñëw di appliquer charia ci yow. <laughs> seen moom mooy yoon. mais paa yi ci boppam. ñoom ci boppam xam nañ ni dañoo waroon a ray sa papa. reyuñu sa bopp pare bëgg laa rey pour lan loolu lañ ko def booy bi nit jël jëlee ay bagages am gi yëpp jël ay jabaram ak doom dem dem yoonam. Hmm. et puis jabaru papa ji di jibile ci loolu rakkam yi nga xam ne moo leen jàppale njàng ñi di jibile jibile ci loolu loolu loolu loolu du xawi kóolare am na ay oustaz yoo xam ne dañ ànd ak man mais man man man loolu noonu ñu ko mbir daal nit li ko lislaam teg hmm. su ñëwee teg ko wax ko mu teel koo xam mais doo bàyyi ba nit ki am magum jëmm jur ay doom yor famille too nga woo ñëpp ñu toog ñu ne ko yow mii alal jii nga yoreel sa baay nangam ati 40 ans yëgu xama woon noo juddoo waaye nii nga juddoo. Mm-hmm. loolu kenn du ko def lislaam waxul ngeen toog ñu toog ñu toog adduna ànd boo ci gis bu nekk rek day jeex. jeex ci nim la neexee am na ko ne daal moom wax dëgg yàlla li ko jaaxal ci. relation yi léegi bokk intérêt la jamono bu ñu demee rek boobu maanaam sa intérêt bu nekkee ci nit ki bosam ne ci sa bos ngeen daal di jàppante ne ay wóllëre ngeen ay kóllëre gaa ngi nàngam nangam bés bu ngeen demee ba loolu jeex rek euh, mu mel ni dara dootul dox seen diggante am na keneen ku wax itam kooku whatsapp la ma yóndee mami Linguère mm-hmm. nee na da ngay xool booy liggéey fenn mm-hmm. nga ni diw sama collègue la kooku sama xarit la nee na boo moytuwulee bu ngeen retraité retraité dootu leen tegante bët kon foofu pour moom xaritoo amu foo woon ajaali ngeen parce que du ngeen ay xarit ñaari mag bu ñu demee ba ku nekk bi jaaw bu ñu tasee ay xameel lañ wala dañoo bokk lu ñuy def mais xaritoo da ngeen di ànd ngir dara da ngeen am lu ngeen xaroo ku nekk téye ko mhm. ndax guro boo dindee benn ŋàdd bi ci lay lax mhm. ba kon beneen ŋàdd ba lay wër ngir mën a delluwaat na mu meloon mhm. mais nee naa la Sénégal dañuy defu xameel mu di mbokk ñu jëlub dëkkandoo muy xaritu col creusi nga jël ko sa doom bokkal école nga def ko xaritu ñàpp jël ka ka nga xamante ni da ngeen a bokkub tuur nga ne sama ndey dikkee bu dee ma dee bu pikiroo ma pikiru bu naanee comprimé ma naanee comprimé mm. su amee wujju nga fanaane caa wax ba sab sëy di kalaj kalaje mm. yow sa bos baaxut ngay dem di lijjanti ci bosub keneen mm. su nekkee ci problème nga gàddul ko problème ya waaye problème yooyu nga ko gàddul soo paree lu ca nekk ca mbedd ma yaa ko ko tegal ca mbedd ma kon li baaba njéeme wax la cest à commencement bu faussé mënu leen mm-hmm. caa teg leneen lu baax Eva océan Atlantique yaatu na torop gis nga ku ci sa papa moom xamanteeg Ali Dangote jël sa tonni ciment dem teg fa sab gratte-ciel yàgg-yàgg day màbb ndax maa baa baaxul lu ci nekk dafa am fu mu war a jaar ku ci nekk am na koo war a àndal ku ci nekk am na xamante nga ki nga lay nëbbal sa sutura ki lay nëbbal sa ay ki lay nëbbal sa leneen mais Eva loo mën a ñëwee ci kër fekk xale bu ndaw mu rafet loolu ba mën a dem élection Miss Sénégal waaw nga ñëw ne ko je t'aime mu ne la moi aussi te mu wóor la ne sa juddu mayu la ko sa poos mayu la ko sa leneen mayu la ko te am na jàmbaar yu la mën fopp yu ko bëggoon mu lànk mu ànd ak yow ngeen di sëy mu jural la benn doom ñaari doom ñetti doom ñeenti doom ba juróomi doom yaramam commencé summeeku ndax ku nekk xam na ne juróom ñeeri ñeenti weeri ëmb benn bésu matu fay na ko ngeen nekk ci loolu jóg ak daanu ba lépp taxaw kër gi taxaw entreprise bi taxaw leneen ak leneen taxaw ba famille nga xëy suba feebar ne ko tàpp wala ci ba muy wasin lu mujj la fistule dalee ko ca wala jàngoro dab ko wala yaramam dafa summeeku wala yaramam dafa bàyyi nga ne ko tegg ci biir kër gi wan ko ne ko carrément yow kat dañ laa nommé léegi ci nomination yi xew loolu yëfu dog la daal di dem dal di takk jeneen jabar joo xamante ne Kumba Talon lay tudd Faat Jóob cil maxa ndax ne maquillage ma nga dem ba fa ndaw sa mu wopp tëdd ay weer nga takk takk gu rëy goo xamante ne nii da koy gisandoo ak ñëpp la koy gisandool daanaka bu koy yëg sax boo moytu léegi li yëgale ñëpp ak ko koy yëgaleen mooy day nekk ci benn kii di zappe ba yàgg rek mu yem ci mariage ba naan xam naa boo demee sama jëkkër invité ci la ci woon gis ko ñu koy félicité ndax encouragement ak félicitation rek am ci réew mi léegi jëkkër jooju nga di ko woo du la wuyu gisu la seetu la xamul ci loo nekk ndax ma ngay dund moom bànneexu àddunaam mm-hmm. ndax jàpp na ne moom loolu mooy bànneex mm-hmm. moom jàpp na ne tey situation bi mu mm-hmm. toll jabari prêt à rek moo ko arrangé mooy saak boo xam ne fu mu fëkkee dem waa kooku dafa fecc kóllëre wala dafa wor wala ndax moom dafa def rek ci bànneexu bakkanam wala loolu dañ ko ko digal dafa taal kóllëre da koo taal <laughs> ah moom fecciwut moom fekkee nooy na waaw dafa fekk kóllëre teg mu teg essence taal ko <laughs> nee naa la ba tey dafa am góor ñoo xam dañuy sol tubéy nii mais duñ góor sa kat sa baat boobu nag ni non da nga ne woon mérité wuñ takk jabar bay am doom mérité no góor góor yomb laa non góor hmm. ku mel ni ndooy baan nii yomb laa hmm. ci mim réew mi dëgg la dëgg la dëgg la sa jabar feebar hmm. tëdd hôpital nga dem takki beneen jabar di xew di ko ñaawal loolu yëfi nit la am na ñoo xam ne bañ ko defee awa ba ka feebar wér toog demul fenn de ma nga toog di jaay daqaaram ak déem di toppatoo njabootam bësa ngi ñëw taxe kay leewu ca jabar jooju mu takk ñu indil ko aawa bi leewu mooy naka bu bu la nee na nguufaanoon am na maire yi bari ñu ngi seetaan seeni jëkkër defoon nañ leen loola waaye bañ feebaree tension diabète feebar yooyu yëpp di dal leen ca kër jabar ju bees ja dañ leen koy indil parce que jigéen ñi Sénégal am na foo xam ne suñu soo tolloo cib sëy dañuy ngiro maanaam soo tàmmee demee ba am doom ju toll ni ndoy baan mënutoo dem fenn dëgg te say affaire doo bëgg mu génn wallaay dëgg yooyu nag dañuy toog di muñ ñoo fi dur ñoo fi jur ñoo fi jur kii générique ba lu mu wax ceey ndoy ba naka la koy wax ceey xalaat xalaat déglu ma yooyu seen paa di abandonné maire yi di tantalaan fu ne ñu mais ñoo fi jur ñi ñuy coow foofu tamit dafa am benn metti metti bu bu metti bu fa nekk ndooy su mettiwul doo jur ñi ñuy coow non d'accord ah, waaw waaw waaw ah foofu nag dama mami damay dikk ci loolu mm. Mm. dafa am sama benn rakk bu jigéen danaa ko tudd sax mm-hmm. Mm-hmm. manti mm-hmm. moom mooy sunu bàjjan mu toog mu ni ma ñuy waxtaan xam nga foofu Bamana c'est un club d'amis ñuy waxtaan mu ni seetlu leen ñu ne ko lan mu ni en réalité jigéen ñi fi toog yëpp muñ seen sëy yi mhm. wax dëgg yàlla am na lu leen yàlla fayee wallaay mam yi noonu la ko moo ko wax du sama kàddu mi may mhm. seetaan mhm. mu ne boo seetee ba seet wax dëgg yàlla jur nañ fi lu ko jar waaye malheureusement ndeysaan am na ñu fekkeewul nag day am. bala mu ne neex neex wa wa waxi waxi waxi. mante jooju wax na ndaw la. waxi mante jooju. wax waxi waxi sama seex boobu dama ko ci tegal lu wér. dëgg waaye yéen ay maas wallaay. bala mu ne neex neex faaw mu ne nux nux. wallaay Diop. beneen bi ci topp mooy waaye ak a metti ah déggoo liñ la wax. ay jeeg na caraxu. Mm. jeeg na caraxu jeeg na caraxu. Mhm. bu say doom màggee nga sol koket teg ca fuddan. waaye léeg-léeg nag mu fekk la bàq ya caaka njaay wala armée li yoof. dëgg dëgg doom ya nag dañuy détourner seenum xel ndax dangaa tase góorum njugub. Mm. fecc katu kóllëre taal katu kóllëre xel. mu ne say doom seen yaay nag ma doon leen boo xefee sax mu ne leen seen yaay metteeg sonal maa ko taxa a gaaw a dee doom ya du ñu am bàjjan bu am kóllëre mm. doom ya du ñu am maam ju am kóllëre <laughs> doom du ñu am mbokk yu leen dar pour wax ak ñoom dëgg doom daal di jël ñoom la ñu leen nettali ndax sëyub ndey ak bàyyi jalub muus la bu doom wàqee gis lu taqi loxoom lu ndox du raxas waaye na nag mami na ñu bàyyi di nettali ku ko ci bàyyiwul nit a ngi toog ca mbedd ma di tas këri jàmbur mm-hmm. mami est-ce que dégg nga Euh, nit a ngi ca biti moo xam dëkkandoo la moo xam sa sœur la moo xam sa frère la sa kër bu amul jàmm moom moo tax sa kër amul jàmm. Eva damaa mus a am benn cas bu rëy damaa mus a am benn cas bu rëy xale bi na ma baal léegi sama doom la. waaw mais ki yaayam bañ laa bind ci sama téléphone ba tey. <laughs> ah da nga ko bindal ki yaayam bañ. non rek loolu laa ko bindal parce que loolu laa ko doon fii yow la yow la de. te pourtant <laughs> rakki maamam ju bokk ak maamam nday ak baay moo ko wax ni mu juddoo. rakki maamam ju bokk ak maamam nday ak baay. dégg naa la moo ko wax moom ni ñu ko juree. dégg naa la mu dem ca yaayam di ko wax yaayam au lieu mu jéem a fëkkaat doomam sang ba mu set. mu rokkatiwaat boot ndax man damay oh. wax ne. fecc kóllëre ak sa doom sax dafay am. Mm-hmm. sa doom nu mu mën di juddoo doom la. dëgg te demandé wul à naître yow yaa ko jur. Mm. nañu la siif nañu la forcer na nga sëy góor goo bëggul. Mm. na nga sëy góor gu la liggéey ba takk la. na nga sëy góor gu la sa papa dugaloon ngir euh, fay bor mhm. wala ngir def leneen yow loola doom ja xoolal aram njaay penda jóobam nekku ca mhm. doom jooju waroo koo jokkor maa joor jokkor leen ak moom ci na mu juddoo. dëgg nga jël doom jooju yow tey fecc nga ko lëre sa diggante ak sa doom jooju. dëgg parce que yàq nga addunaam te yow sa àdduna xaaj na. wax nga dëgg ndax yow sa adduna dund nga ci bànneex. wax nga dëgg doom jooju mi ngi soog a judd dundul bànneex. kay ñëw nga daal di koy wan ne ko yow sa maama la jur. yow paa bi doon taxawaalu ci koñ bee la jur. Mhm. sa papa ab drogué la woon. Mhm. sa papa ab lii la woon sa papa ab laa la woon. am ci nag góor ñu manqué na ñett yu ñaar ñu réer fukk di seddoo dërëm ba toog naan sa yaay bon gi bonoon am na ci ñuy dem ba naan la sa yaay ñàkk ñàkkoon a tëye ab skumbaam moo tax ma fase ko mu dem te dooy sama yaram nee na te baan wax na leen ne leen mm-hmm. boo jàkkaarloo gone ne ko sa papa mm-hmm. def na fi toj na fukki buntu kër mu ne mais paa bi guerrier la ah mm-hmm. mais soo nee gone sa yaay dafa tëyewul woon askumbaam kooku yàq nga am am na fi jëkkër yoo xamante ne bu ñu taseeg yow fecc kóllëre ga mi ngi tàmbalee ci mm-hmm. ndax yow dañuy bëgg ñëpp suur la mm-hmm. waa Eva kii yow mm-hmm. ci biirub sëy jëlub téléphone am di enregistré ay audio di yónnee ay nit waaye kooku ba lëggee bu la nee ñu ànd bu feccewul kóllëre waaye dafa taal kóllëre ga comme la baan di wax boobu émission bi di jeex bu fi kenn waxati fecci kóllëre taal la taal kóllëre non c'est vrai <laughs> dafa dafa taal kóllëre moo tax Diop yi am yëpp boo ko nattee euh, inspecteur man yii am yëpp ci àdduna Baba njéemé boo ko nattee faw da ngay def tekk def dal parce que daf naa am yoo xam ne day dikk ñëw day mel ni dañoo jël ci suuf yóbbu ca kaw jël ca kaw yóbbu ca suuf faw nga dal ndax li mam mi wax rek laay dellu si xale boo xam ne juddu na deful kenn dara di dox soxlaam yàlla def sax mu dem bay faj ay ay ay buumi gàcce nu ñu koy waxee mu xëy suba teel ñu war a dellu ca gannaaw wax ko ni mu juddoo ki ko ko nettali moo ko tooñ mhm. dangay ngay gis couple boo xam ne effectivement euh, dañu am doom boo xam ne juddu na booba sëynu ndeysaan mhm. mu nekk taaw ca kër ga mais noo def ñu def ko ci noppam mhm. tandis la ngay ñëw di ko def ci noppam waroon nga fexe naka la diggante bi rafetee naka nga koy dalalee naka nga koy gunge yi am ci biir kër yi mami dafa xumb lool Eva sama yaay daan Eva sama daan wax naan bu dee rusut lu tàggee di am kersa mm-hmm. nee na comme dee dem na ba rey mm-hmm. léegi moom lu tàggee di amee ker kersa mm-hmm. xam nga dama fi ndoy baan dina fàttaliku li may wax nii benn femme boo xamante ni maa ngi koy nuyu bu fekkee ni mi ngi may seetaan na ma woo ndax gëj naa ko dégg waaw ndaw si dem na ba nekk bitim réew di faj soxlaam yàlla dimbali ko fa teral ko fa lool. Mm-hmm. mais problème bi mu am mooy jote na ak yaayam. mu ne ko yow demal wari sa baay moo gën ci yow. Mm-hmm. man du ma wëri sama baay mi ngi ay rakkam. tu vois yor ay rakkam naf nafee leen teg leen ca kaw boot leen uuf leen ndax ne seen papa la sëyal ndax daa nopp seen papa. Mm-hmm. Eva ex pa ex jëkkër day am ex jabar day am. Ah. ex doom du am mukk ci àdduna. dëgg kon sa doom mu mën di mel sangal te roggante. demal nga wëri nga wëri sa baay léegi moom xam nga nu mu ko toppee mu dem ci rakku yaayam ba tey moom itam wax ak moom. rakku yaay ja gën ko ko dëggal ne ko kiñ ne mooy sa baay du sa baay léegi moom xam nga nan la mujjoon di def comme yaayam nit ku siiw la woon ci réew mi di fréquenté nit ñu siiw ñi dafa mujjoon ku génn tele dalay photo ci téléphone am di dendale seen kanam yi di xool ba xam est-ce que yow mi waroo doon bàyyi xam nga kooku am na ñu mu a ba dem ba woo ma ne ma ndax mën a xale bi xale bi mënul tontu xale bi du mu war a seeti papa man juddu naa ba am fanweeru at waaw mais ma yëgal sama dara mais xam nga ndoy baan xam nga xam nga damaa laaj ke barki démb ki juddoo ci Dakar yaroo ci tool nu mu war a sant tool dafa am yoo xamante ne tey bu lañ la ko waxee yaa ngeek tontum ci sa catu làmmiñ mhm. waaye boo ko tontoo la nga doon wax ay ñu daan ne la waajur doj la doom nen la boo dalee ci kawam waaye am na ci waajur yoo xam ne ay éponge lañu doom di nen da cay dal bonde ca kaw yàlla dimbali ko nga ni en tout cas fecc ko la mi ngi mi ci diggante ay xarit. ay xarit. xarit ci boppam. Baba Ndiémé ci yow laay ñëw yàlla ak diw. loo xam ni tey Eva bu toogee ba jekk ah, ah? yàlla ak diw. waaye Eva moom diw boobu sax nag mm-hmm. bëggatu koo gis mm-hmm. parce que xam na sa démb mm-hmm. parce que xam na fi nga jaar au contraire waroon naa gën a rafet waaye da nga dul bëggati gis nit ki ba dem. di ko tegal ci deram loo xam ne wax dëgg yàlla weñ weñ bu ci tag dee lan nga ciy dolli baaba loolu loolu am na fekk ci kóllëre ci diggante ñaar ñoo xam ne yàlla boole na leen mhm. euh, ñu am fu ñu jaar jàppalante am ci seen biir dëgg ba peut-être am koo xam ne am na fa mu àgg mhm. am koo xam ne xëj na am na lu ko lu yàlla la ay mbiram dëgg waaye euh, Eva dinaa dugg foofu tuuti mais xam nga mam yi mhm. dafa am fu mu dugg tuuti ci diggante Ndoye Bane sa fellu na ko ci te li ñuy wax ci kóllëre yëpp Mm-hmm. dama jàpp ni foofu la ëpp doole. Mm-hmm. muy diggante ndey ak doom. wala oh, baay ak doom. Mm-hmm. xam nga da ñëw ci benn côté bi. muy lu am. ki nga xam ni fekkewul xamul nu mu juddoo fekkewul juddoo. dëgg la nga war a am kóllëre ak sa xol. waaye. nga war a am kóllëre ak sa xol. parce que nag yow da nga déglu woon sa xol. ba jaar ak góor foo war te jaar. ba doom juddu ja. kon yow amul kóllëre ak sa xol ak sa nobel nga nga nobel bàyyi ko. doom ji yoonam nekkul bu mu di ko dégg ah am na fee ku fi nekk Amérique nee na dama la koy liiral nga àggali mm. euh, à tous waaw comme tu es la là ça n'engage que tes parents mm. c'est pas ton problème dundal sa dund waaye waaye bu leen ñu sonal waaye bu ça sa yoon ci loolu cinéma la moom mais ah, mais Eva dafa am coloré uh-huh. euh, nekk ci beneen ci diggante ndey ak doom uh-huh. ak doom uh-huh. bu ma bëgg ñëw te c'est important ay wa bismillah parce que dañu toll ci jamono joo xam ne Euh, xale yi aussi li ñuy fetteeku dafa bari li ñuy màgg man wan gannaaw ndey wala wan gannaaw bàyyi dafa bari euh, te jàpp naa ni waxuma sax bu du woon sax même bu fekkoon du daanul yàlla wala santaane yàlla wala dara ñu yem rek ci baatu kóllëre kóllëre nit ku am kóllëre nit ku am kóllëre jàpp naa ni bu xelam demee te fa mu jaar ak ndeyam bu xelam demee te fa mu jaar ak baayam su demee ba ndeyam tële su demee ba bàyyam tële moom yàlla ma ne ko ma gan am na nu mu war a doxalee ak ndey ak bàyyi lutul wan leen gannaaw fekki couleur gi foofu dafa bari léegi trop dëgg la parce que dañuy màgg am yeneen ndey mm-hmm. dañuy màgg am yeneen bàyyi parce que am na fu ñu toll te loolu nag nit ku baax di xaleel bu bëgg àgg fa sori war na ko moytu mais li nga wax ni c'est très bien mais am na fecc coloré boo xam ni mm-hmm. dañ koy jiin xale yi te du fecc coloré. Mm-hmm. baaba njëme. Mm-hmm. waaw. bàyyi boo xam ni xamul fu ay doom ban classe la doomam yi di def. benn. xamuñu ndax ay doom añ nañu wala añuñu tey jii. oh ñaar bàyyi boo xam ne tey jii ba xale ba juddoo ba ba mu nekkee ci biiru yaayam. la ko yaa la ko la ko lañ ko gëj a gis. wala ba xale ya nekkee xale liir musul jënd kuus. musul jënd meew assisté xale yi. ba xale ya màgg. abandonné ko loolu fecc ko lëre la. korite di jot ba nga solal tabaski di jot ba nga solal kan moo foofu. waaw man jàpp man jàpp naa ni fecc ko lëre la. kan moo fecc. tant que xale na ba ma ko a wan. nga xaaral ma ñëw d'accord naa dégg naa ni ko bu baax xam nga nag baaba baaba man man a a na ma. mais boo ma àggalee mbéj na ma hmm. waaw moom mooy ñu ne ma yow lu tax ngay fay. mais euh, euh, Ndoye Bane bàyyi bu abandonné ay doom pendant plus de trente ans. Ndoye Bane xale yi abandonné ko ñun Sénégal fii dañ xale bi li ñuy sikk naan ay doom nen la. mais doom du benn nen ah. ah doom du nen de. Ndoye Bane doom nen. waaw waaw bàyyi bu abandonné ay doom yow yaay nen. <laughs> bu doom ji nekk xeer. waaw d'accord yow nga jur. l'islam dañ la yow nga yow waajur sàmm la yow sàmmoo dara. Mm-hmm. bàyyi nag yi di ruur. xam nga waaw ñu ni yow xale bi nga xam nga ndoy baat xam nga ndoy baat jërëjëf baat xam nga ndoy baat ci sama xam nga ndoy baat ci sama mais mais baaba baaba njéeme yow laay jox kàddu bi dugg na fu garaaw waaw dëgg la def ci am pap yoo xam ne am yaay yoo xam ne dañuy ñëw dugg sa vie finalement dañu lay sax perturbé mais man aussi fu garaaw foofu dama ci am seen benn DG rek ne kii maay yaayam. wala kii maay baayam tooñ nga ko. Eva Eva gis nga ah, fu garaaw sama xalaat laa wax gis nga dama ci am point de vue. donte doom na def waree fam sama point de vue. sama ah. point de vue ma ma sax. waaw moo ay nit suñu toogee di wax. wala ay nit suñu toogee di waxtaan. la nga xam ne moom lañ ci bëgg mooy ki nga xam ne moom lay déglu. dëgg moo cee déglu mu am bu jëlee ca jariñ. ah kay. te léegi man dama jàpp ni. waaw xale bi nga xam ne baayam defoon na ko noonu. wala doom ji nga xam ne ndeyam defoon na ko noonu bu fekkee ni déglu na dégg ca loo xam ne ci dafay tëb fayantoo ak baayam wala tëb fayantoo ak ndeyam soo ca day am njariñ it njariñ la du bari waaye donte baayam tooñoon na waaye donte ndeyam tooñoon na mu ne ah man baay baay la ndey ndey la tooñoon nañ ma waaye jéggale naa du ma fayantoo ak moom foofu lay ëppee njariñ ci moom fukki junni yoon ci biir ak ci biti ci àdduna ak ci àlla Baba Ndiémé tegal loxo ah, ñu wax la dañ la da ngay àggali ñu wax la ne mm-hmm. d'accord nañu ak yow waaye da ni nga ko waxee mm-hmm. dañuy jàngale di yeete bëgg nañu itam ndey bi nga xam ne nanguwul jël ay responsabilité am mm-hmm. baay bi nga xam ne mm-hmm. nanguwul jël ay responsabilité mm-hmm. ba nit ki yàlla mu muur ko mbalaanu sutura mu dem ba toog toggaay gu jekk nekk kilifa léeg-léeg nga saisir média yi di wax yaa juróom juróo loolu tooñ la d'accord na xam nga da may wax ni ma. wàññi la xam nga da nga may wax. waxuñu toppatoo bi dikkagul de. waaw d'accord ndax boo ko léeg-léeg. man fi may waxee fi may waxee. baaba baaba baaba gis nga toppatoo bi. Ah. ma dañ lay jox kàddu gis nga ah. toppatoo bi mm-hmm. dafa war. ndax daa toppatoo toppatoo sa maas yi baay. ku ak sa baay. Mm-hmm. wala ci ku ak sa ndey. Mm-hmm. joxe bi du dara. Mm-hmm. ka nga xam ne yàlla may na ko barke. te mu mën ka mën na laa defal. waaye léeg-léeg dafa am lu ñuy faral di gis ci dëgg. dëkk bi dëgg lam du dëgg dafa rafetul ci kilifa. bu baax la ànd ak yéen. jox nañ la kàddu bu baax la ànd ak yéen xam nga waxuma ki nga xam ni. waaw nanguwul sax ni moo jur waxuma loolu ba xëj na mu ne magum jëmm li dégg nga am njariñ mu ñëw taxaw naan maa jur waxuma ko waaw mais dama ni fii ñuy wax fi gën a sensible day juddoo ci kër gi yaroo ci kër gi màgg ci kër gi nekk ci biir kër gi bàyyi seetaan wala yaay seetaan ba mu nekk mbagum jëm waaw wala mu am ay fay yu amoon dëgg la kooku ma tax moo tax di wax d'accord ay la yéwén ak lu mën a xew waaw statut doom bi mu doonoon moo ko bàyyi woon ci biir kër gi ba lépp xewee ci biir kër laa bëgg xam nga mm-hmm. su su ma àggalee rek dinañ te xam nga bu may tàmbalee wax dama bëgg dama wax ni. Mm. nañu bàyyi xel baatu kóllëre ban moo ëpp doole ci diggante ban ak ban ak ban mais indi wóot ni nit ki bu fexee ba matal kóllëreem ak suñu borom ba mu wóor ko ni kii kat kóllëreem ak suñu borom matal na ko sëkk ku mu séqal kóllëre ci àdduna dina ko matal. Mm-hmm. léegi bàyyi bi nga xam ne moom dafa jur ci biir kër gi. Mm-hmm. war a ci biir kër gi dundal sàng def lépp su matalul la nga xam ne moo lañ ko santoon ci doom bi kóllëre gi mu ngi ko fekk diggante moom ak suñu borom. parce que suñu borom moo ko ko sant suñu borom moo ko teg mu lànk def ko loolu mook suñu borom la dëgg la yàlla fekk lépp xam lépp moo tax itam bi muy wax ci boobu diggante mu xam ne lii ngeen di wax mën naa am mm. waaye moom mu am nu mu ko bëggee mm. ba tax mu bàyyi fa baat yëpp waxul fayantoo leen ak waajur mm-hmm. waxul dimbali leen waajur mm. waxul jaamu leen waajur waaye mu ne indi baatu ixsaan mu ne rafetal leen dimbali ak seen ñaari waajur waaw lan moo tax yàlla lan moo tax yàlla bàyyi fi baat yëpp indi baatu rafetal. ala kulli xaal loolu du fi parce que xam na ni wéy bi mënoon na ñàkk taxaw. dañuy dëggal parce que xamoon na ni baay mënoon na ñàkk taxaw. parce xam na ne yaay mënoon na ñàkk taxaw. waaw waaye yàlla moo tànn ndey moo tànn baay. waaw jaaral doom ci seen diggante. waaw te ndey tànn ko. bàyyi tànn ko doom itam tànn ko mu ne waaye comme man maa tànn ñoom sant naa leen lànkal mm. yow su ma la santee defal li ma la sant mooy rafetal ah xànkay man jàpp naa ni loolu mooy bénéfice doom leeral la ñu doon indi ñun ci sunu wàll maanaam kaay baara baara kii baan mës naa fi wax ma ni ma mës naa fi wax ma ni euh, ma ni ndaw ñi mais dégg nga ma baara mës naa wax euh, kii baara ñu ngi koy nuyu sunu xel a ngi ci moom mm-hmm. mës naa wax ma ni mm-hmm. waajur waajur diggante doom ak waajuram waajur bu la tooñ ak bu la tooñul jëfal la nga war a jëf rek magum jëmm lu mu jëf ak yow xam na ko moo xam tooñ na moo xam tooñul yow doxal sa waree fi doom loolu moom dañ ko d'accord mm-hmm. signé nañu ci suuf mm-hmm. parce que ñoom suñu wayjur yi yoon may na leen itam mm-hmm. nga war leen a toppatoo toppatoo woo leen ñu yóbbu la tribunal ñoom dañ ci am droit yaa may dégg bu loolu weesoo itam faw comme dañuy waxtaan. Mhm. ñuy do ñu dolli euh, dollante xalaat. tey bu fekkee ne xam nga yi ñuy gis. sunu xam nga yi ñuy gis sunu dëkk bi. léeg-léeg dafa am ay explication derrière. Mhm. doom ni mu neexee. Mhm. ngay xool sa yaay. mu jël weenam bii. sexal ko sa gémmiñ. moo ki yow moo ki yow moo ki yow ba nga nekk ponkalum jëmm soo demee ba toog ne diw du sama yaay bu dul ne nag da nga complexé parce que am na ñu fiy nëbb seen yaay subhanallah yal nañ ci yàlla musal mhm. am na yu war a yoo xam ne dafay am mhm. nga jël sa doom di sëyi beneen kër jël doom jën nëbb walla nga gis ku lay seet si tàggoo nga seen baay nga jël say doom di nëbb wala nit dikk ñëw ci yow nga ni ko amuma doom boo amee fukki doom ne ko ñaari doom laa am du dëgg du yoon na ko nit ah, ñi bàyyi moom boo sëyeeg moom oto bi la yeboo di yóbbu ah. xam nga daa am jéeg yoo xam ne bu ñu leen di yóbbu ñuy sëyi dañ leen di ah. wayal naan leen bul dóor bul saaga dañ leen dañ leen di wayal bul dóor bul saaga américaine lañ la indil waaye am na ci ñoo xam ne bu ñuy sëy dañ leen a war a wayal deel dóor deel saaga wengare piir la ñu la indil man ni mus naa gis xale boo xam ni maa ko dund maa fekkee jooy naa ci ndax dafa jege samay doom mais moom day wax mu ne moom xamul yaayam ma mère ne veut pas de moi mm-hmm. barke Cheikh Tidiane te góor rek la ko jëndee ma ko waxee mu ne ma mère ne veut pas de moi. te góor rek la koy jëndee maa ko gis man. te te xale boobu. xam nga Eva Eva dafa am te xam naa yaayam. léegi waaw jaamu njéeme. léegi loolu yaay jooju yaay jooju lan la moom xeer la wala. Ah, man sama yaram daw na sax. bu kenn ah, jël xaaral. gis nga baaba xam nga baaba may mayal Eva mu àggali lii dafa ma ñor torop. ëllëg bu añ du reer dañu koy sédd. Mm-hmm. bu benn jël ci doomam. Mm-hmm. benn jigéen jël doomam. Mm-hmm. ne baayam bëgg ko mhm. man itam bëgguma sama doom dafa juddu dafa laago duma ko sopp jox naa ko baayam jigéen sax boo demee ba jur doom mu laago war ngaa xalaat booy dem nga jëlaale sa doom nga taf sa dënd bu dee am nga xol mhm. doom juddu laago mhm. nga ni baax na nañ ko bàyyi fii nga joteeg baayam nga ni baax na nañ ko bàyyi fii gis sëy bu neex donte ci diine itam dañ lay wax i pare am nga war nga ko jox maamam ak yooyu yooyu waaye sa doom jëlal nga taf sa dënn mhm. ndax doom mooy njëriñu ëllëg mhm. dañ man mais man mais man balaa balaa baaba di ñëw mhm. dafa am boo wax boo xamante ne bu ma ci waxul ba ba jóge fii ndeysaan ndeysaan su ma ñibbee damay feebar ba lënti <laughs> ndax day wax joo xamante ne danga ko wax te xam naa ne metti na ñu baree bari ñoo xamante ne tey loolu bokk na ci lu freiné seen carrière mhm. même bu freiné seen carrière carrément aussi am na ñox ñoxal bu mu def ci seen xol mhm. ndax dama laa wax démb ne la Sénégal bu ñu far dañuy far farloo mhm. ndax far aayul sénégalais ngi mere sénégalais te la mu ko meree séqantewu kook moom defantewu kook moom nit a ko ko nettali mu jàpp ko mhm. te ka koy nettali fekkewu ko keneen ak ko nettali mhm. mais su koy nettali waa danaan maa ko fekkee wala mu nettali ko ca manière ba mu ko safee mhm. ba nga xamante ne yow da een nit ki nit a ngi toog ci télé tey nit a ngi la séen jéppi la nit a ngi jiite benn societé nit a nga ca biir di la riita mbale jéppi la xamu la xamalu la dafa tase ku xam ku la xam koo wax ko mu ñëw wax li nga ci gis baay boo xamante ne dañuy xëy fal doomam yaa ko wax sànq wala doomam tekki dara tey ci réew mi te fekk tekkee goo dara sa yaay la jur de dëgg waaye bis bu ñu xëyee fal la ba ñu ne conseil des ministres daje nañu ba pare président wax na décret nangam nangam nangam nañ koy waxee nag xaw ma ko baalal leen mm. euh, diw nommé nañ ko poste sangam remplacé na ko dem retraite wala appelé à d'autres fonctions mm. nga daa di gis paa bi daal di bësëx bësëxi daal di jooy yàlla bu mu fekk nag mu am jabari saytaane ju mel ne Fatou Diop Thilmakha daal di bësax bësaxi daal di jooy lii laa ko yéene woon te kat Sénégal ako ñoo gaaw ci xamoon naa ko xamoon naa ko nag ñaar yi lañ ciy wut. Mm. boo bonee ñu ne xamoon naa ko xamoon naa ne du tekki soo baaxee ñu ne xamoon naa ko kii li ndeyam liggéey xamoon ngeen ne day tekki waay baay bi daal di bësax bësaxi jooy nekk wékk na doom ji waaye bañu ko lii rek laa la bëggaloon lii laa bëggoon mooy mu tekki te xamoon naa ne boo ko deftoon nii du tekki ndax yaayam daa dëgër bopp dëgër yaay ji moom la nàmp te ma deful woon nii du tekki tànta ji bàyyi ba guddi mu daan ne ko waaw doom doom la ak lu mu mën di doon comme demee na nii tey demal ñaanal ko ngay def euh, war a taxaw passation de service wala leneen jékki-jékki rek gis benn paa bu ne ñu xel rek mhm. daal di sol mbaxana ndooy baat mi mhm. daal di jël nag bologam bu saf saabu te ñemeeg liiñ daal di koy sol nag jiital doom yi mu jur yépp sa ah, ginnaaw te doon leen toppatoo dañ koy gis ñëw nag ne jël na ci sa kanam ne woccu ñëw taxaw ne la maa ngi nii maay sa baay bëgg nag nga daal di koy présenté ci biir ni ñi ah bëgg nga daal di koy présenté ci biir nit ñi bëgg nga daal di koy yëkkati ci biir nit ñi bëgg nga daal di koy da su booba sécurité yeewu leen ko génn ca biti <laughs> ah, subhanallah léegi baba maa ngi maa ngi jox la léegi man booba naqari booba naqari ma de ah, bi Eva wax moo ma ci gën a naqari ah. mooy da ngay woote conférence de presse ndax léegi Sénégal woote fi conférence de presse jarul woon ñetti journaliste ndax am na ñoo xam ne ñoo ngi mën a yem tooguñu ci ban jàngewuñu si la biir beer euh, ami ami erreur mi waxi noppi mais dañuy yor seen dictaphone rek nga woo leen ñu ñëw nga daan ne waaw sama doom la maa ko jur mi ngi nii tey bi mu toogee faale wu ma daf maa abandonné daal di wane benn kër ak ñaari sàkket daan ne lii la fi bàyyi te ci néeg bee la juddoo waaw ba mu juddoo ci néeg bee da ngaa ramaas saago yaayam sànni ba yaayam di dem saago ñëpp ko bokk la yóbbu xam nga buy saago ñëpp ko bokk bi ngay fekk ci gaar bi muy def karaw karaw yi boobu nga dugalal mu gàddu ko yóbbu nga daal sama doom la sama doom la fekke woon ndaje ma ak ñiy seetaan. Mhm. sénégalais bàyyi leen xeexal nit xeex bu seen yoon nekkul. bàyyi leen juge juge bu ngeen xamante ne demu leen tribunal nit doo ko juge sa xel. tëj ko ci sam xel condamné ko à vie te doo ko may. xanaa ki la jàpp à flagrant délit sax. dina la may benn occasion. Diop tàggatoo jot na léeg-léeg ku mel ni Eva sama bopp sax laay jëkke mm-hmm. na ma yàlla jéggal jéggal ci ma jéggal ñi mel ni man. Mm-hmm. da ngay wax ba mel ni yow da nga fanaanoo ak yàlla. Mm-hmm. dafa mel ni yow da nga yéeg arrache dem fanaan ak yàlla wàccaat. quand tu parles de Ndoye Bane wala tu parles de Baba Ndiémé ngay wax mel ni yow yaay yàlla ah yëf bu bu doy waar ci benn euh, kii rek sama benn rakk ndeysaan nee na dafa am lu mu mës a jàngat rek lu gàtt euh, dafa dugg ci benn kaar ay jamono yàgg mu duggee ca biir kaar ba ma nga toog ak benn góor paa bi mel ni ku ko séexlu damay nettali paa bi mel ni ku ko siixlu booba temps moom mi ngi dem jàngee rajo Dunia ci Tafsir Thiam. Mhm. ñu ngi koy nuyu. nee na paa bi ngi ko siixlu siixlu suñu papa jooju ndey ndeysaan xam naa Njaay lay sant waaye ba ko tafsiram woowee ne ko na na na na tari balaa muy agsi comme day dem. Mhm. mu tari saan wax noonu kii paa bi daal aa ah, waaw sama doom mu ne ko papa yow itam yaa ngi mel ni ku ma woon loolu tam bokkul ci diine bi xam nga pour wax nañu ñu def attention nañu def attention c'est important juróom nit ki moo moo ko bul ko juger xamuloo fii wam bul ko juger yàlla na ñu yàlla may une bonne dose de mandute comme ça kóllëre bii nuy waxtaanee duñ ci doon àgg wasalaam Baba Ndiémé <laughs> macha allah waaw xam naa ni comme waxtu baa ngi jeex. Mhm. Euh, dafa mel ni daf ñun ñëpp sax ñoo bokk xëj na lu ñuy wax. macha allah peut-être euh, euh, mami su ma ko dégloo déglu Ndoye Bane. dañuy indi ay cas particuliers yoo xam ne waxee ma foofu. dëgg la xam nga am na ñoo xam ni tey. ñu ngi dencal un papa wala ñu ngi dencal un yaay et pourtant. Mm. seen jeunesse yëpp seen xale yëpp ñoo papa ak yaay ñoo nekk. dëgg la dafa am rek ay njuumte ak ay erreur yu ñuy fàttaliku ci papa wala ci yaay. la ko fay wala lu ñu leen loolu laay bañ. dëgg la mais waxuma ki nga xam ne dafa rejeté doomam complètement ba njëriñ ñëw taxaw ni ko maa la jur mooy papa muy yaay je parle pas de ça. Mm-hmm. mais am na ñoo xam ne seen papa mu ngi dëkk ak ñoom seen yaay ñu ngi dëkk ak ñoom ay lay yéwén. dafa leen ñetti taal yi ba tey. Mm-hmm. jënd na ordonnance ba tey. mais xëj na mos na am njuumte tuuti ànd na ak beneen jigéen pour quelque temps ñëw wala seen yaay mos na am njuumte tuuti bàyyi na leen fi dem na sëyi feneen ñëwaat. loolu ñu bëgg ko fayantoo ak waajur loolu laa d'accordu ma ci. jërëjëf ñu tàggatoo waxtu bi dab la foofu laay wax ne <laughs> voilà ñoo bokk wax Baba Jéeme di nga ñëwaat parce que thème bi pareeguñu ci incha allah koy dañu koy ah, ah. wéyal ñu ngi nuyu imam Saliou saako moom itam sunu club des amis de de Wareef la bokk. ma nga ca Rufisque. bu Guèye Para moom itam mi ngi ci biir mi ngay yónnee message rek. Cheikh ñas mi ngay bind bay bëgga dee baax. <laughs> ndeysaan Cheikh Niass ak Guèye Para ñu bàyyi nga tàggatoo baax na waaw am mbégte vraiment. firi ngi ñëw. <laughs> waaw gént ah. yëpp leer tabarakallah <laughs> am mbégte bu baax a baax a baax xam nga suma ma toogee ak mag yi. Eh, day may xaw a kii mais gis nga bu ndoy bànn dara du yomb. <laughs> dara du yomb fa ngay tàggatoo. mais am naa mbég bu baax a baax a baax. di leen joxe dig daje une beneen yoon incha allah xam ne wareef mu sama émission la. jërëjëf euh, Baba Diémé wax dëgg yàlla ma ooyoo rek te bu fekkee jàpp ma rek dinaa ñëw ba. soxna yàlla incha allah jërëjëf jërëjëf. Ndoye Bane. jaajëf merci Baba Diémé maa ngi nuyu ñëpp ñi doon seetaan rek. Mhm. surtout jéegu Piri faamu Piri léegi. wareef da leen da leen a dugg tellement. Mhm. Euh, ma Maguette Fall ak ak euh, Ndaak Thiam. ak soxna yooyu di seetaan yëpp ñu ngi uh-huh. di leen ziar bu baax waaye kóllëre daal dama ne woon su doon su doon su doon su doon nit la. Ah. fii Sénégal ma ni su faatuwul it ma nga hôpital de tëdd. ci yàlla ko moom kóllëre. jërëjëf waaw <laughs> mami Linguère. wallaay wallaay Ndoye Bane damay reetaan lu fa ma toll et sécurité ñëwaat sama xel rek ay ree jàpp ma. <laughs> delluwaat di santaat bu baax a baax di wax ne li ñuy waxtaanee nag yeewu wuñu ba yee kenn yaru wuñu ba yer kenn. Mm. da di ne rek waxtaan la wuñu teg te da ngay yàgg dund ci ay thèmes yàgg cee def ndaxte loo def fukki at ak nangam. Mm. xam nga ci ruq yu bari yu cay metti te bu ñuy wax lu ci bari day ñëwaat ci sa xol te day day metti lool ci ñamu daal mm. ndax ñu ngi toog di seetaan kuñ ci yëkkati sa góom rek ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu di wax nag ne kóllëree ma booleeg moom dëgg yàlla am ndaxte moo jur samay doom donte tey sax te mooy sama sëriñ ci moom laa su ko jébbalu Cheikh Mourtadam Cheikh woote màggalu basal nga laa yóbbu ci cheikh bi ñu sama sëriñ la mooy lekk sama addiya nu rafetal kooku kóllëre daf nuy liye ba illaa yow mi diini ndax lu rafet la mu mm. ma ji la bu fekkonte ne daf maa defoon fon daal lii daal ay waxu bëgg bëgg a dellu la euh, déedéet déedéet déedéet déedéet di leen waxtaan macha allah ñu ngi jéggal ci wetu sëñ bi di wax ne le vingt di wax ne le vingt sept la ak le vingt huit fële ci Abidjan ca Grand Bassam ñu ngi koy waajal di ci woo ñëpp waaye di wax ne ki jaar ci yére bi ak sañse bi yépp nag mooy waa M3D Kër Linguère bi ñu ngi ci 77 369 15 15 77 369 15 15 papa Abdou Karim Ba dalal ak jàmm yow waajal incha allahu taala remercier na Astamod Astamod madame Diouf ma nga ca ginnaaw euh, exclusive à Yoff euh, moo ma solal kaftan bi ma neex e je suis très à l'aise là-dedans ah c'est le c'est un noir waaye am na ci orange am na ci yeneen couleur gris noir sax nag laa sol waaye lépp duma ko wane ndax mami lay bañ mu gis ko très bien ma nga nekk ci 77 974 03 97 77 974 03 97 tata Mia nga may ma ma wax maam Rokiyatou Diagne yàq yaay Baba jaañ Diori de borom ji mu wuteeg borom wasikaar joyeux anniversaire à toi xam naa ne su ma ko waxee noonu moo koy gënal kon boog joyeux anniversaire à Mame Rokhyatou Diack <laughs> joyeux anniversaire bébé on t'aime très très très fort de la part de tata Mami tata Mia tonton Ndoye Bane et tout le monde nee na nañ ko souhaiter joyeux anniversaire longue vie Mathias joyeux anniversaire très bien xam nga ne suñu xol lañ la def ah, alors coiffure bi c'est le 77 648 50 16 77 648 50 16 ñu ngi leen di wax bon week-end juma mubarak di leen ko wax ndax ñun altine la ñu jëm ak yéen incha allah taala yal na nu yàlla dolli sutura li jàmm ci xol yi ak ci xel yi yàlla dolli koom-koom gi nag gën a naat macha allah oustaz Abdou Karim Ba bisimilah salaamaaleykum.